di waxtaanu ak opinion bi ñu comprendre que affaire bor bi ñuy wax les hommes d'affaires aujourd'hui bu ñu bëggee def investissement bu ñu lebul du ñu liggéey loolu mooy dëgg te da gis sax ña xam dañuy def dépôt à terme ba pare lebaat ci xaalis dem liggéey kon Sénégal dañu xam ni pays yi ëpp bor ci àdduna bi mooy États-Unis ak ak Chine te ñoo fi gën a développé pays Union européenne yi par exemple boo xoolee ñoom seen endettement egg na presque quatre-vingt-trois pour cent ci soixante-dix milliards États-Unis la même chose soixante-dix milliards et Chine quarante-sept lépp nag maa ngi ko jëlee ci ci ci ci maa ngi ko jëlee ci internet bi. kon loolu dafa am solo Grèce bi nga xam six pays yi gën a endetté ci Europe cent pour cent la kon bi naan Sénégal léegi dafa am ay quarante dafa am ay quarante dafa am ay soixante-neuf pour cent. li am solo ci àdduna na nga mën a fay sa bor mën a joxe sa dépense te Sénégal ba ma ko xamee ba tey mësta toog weer bu fayul salaire mësta toog mu am défaut de paiement te loolu mu am solo tant que yaa ngi mën di leb di fay lebal ba mu neex la nañu fay mais li am solo nañu ko def ci investissement yi am solo man fi ma dëkk laa gëm te loolu leer nañu la Promoville benn bi yi moo ko financé benn bi BAD moo ko financé sama akulaay tàllaa laa wax kon leen gis naa ne leb nanu indi sama dëkk Pakistan bi aussi banque mondiale moo ko financé kon ñun tamit nañu nañu leeral nit ñi ni endettement du tax dëkk mu néew doole endettement du dara lu dul leb pour defar si te bu ñu lebul du ñu investir te bu ñu investir du ñu am ay résultat kon dama bugg mu leer loolu ñu wax ak opinion yi di wax encore une fois de plus man aussi maa ngi président maa ngi remercier président Macky Sall te ba nekkee fii maire moo ma jàppale fexe ba dëkk ba tey jii ndax dama recevoir ma ne ko dama xam ne bis dina ñëw dootuma nekk maire te bëgg naa bu ma deewee ba fi man xalaatu ma def fi mu ne ma naa la jàppale utala investissement tey njaarim gis nañ tali yi njaarim gis nañ promobile hôtel bi gis nañ ko tey jii fan yi rek nañ ko démarrer avec programme un milliard et quelque gis nañ si marché ni bu mu lakkee moom la tabax man du ma àndal ku ma amalul njariñ man maire laa bilan nañ ma atte ci bilan bi ma atte ci ku may àndal ak ku ma àndalul day maa jiital may seen imaam nañ ma déglu ma tari samay saar ku ma neex lay àndal képp ku amul njariñ njaareem jàppaloo njaareem amoo yéene pour jàppale ma fii ci dëkk bi ba ci amut ba ku doon te ma dëkk ba ma jóge du ma ko wateel man ku ma amal njariñ lay àndal ku ma tiim am ker ma ànd ak moom ku yorul dara mënul dara xamul dara du ma ànd ak moom